am nag benn parti ci ñi nekk ci paj mi ñoo xam ni bëriwuñ luñ leen di gis ndax seen liggéey yëpp sutura la seen liggéey ci biir la mooy ñi nga xam ni ñoom lañ tuddee spécialistes yi dafa am nag les spécialistes médicaux am les spécialistes paramédicaux spécialistes paramédicaux yi dafa nekk corps boo xam ni tey su président bi demee ba mun a réussir yenn aspect politique de santé spécialisé dans les zones yi nga xam ñoo gën a sori di dem ba ay Koupentoune dem ba fi mu gën a sori ci Sénégal nga mën fa am dialyse nga mën fa am mat am problème ñu opéré la nga mën fa am problème bu nekk sa yaram xamoo ko ñu defal lay analyse nga gis lu la jaaxal sa yaram ñu defal la rajo loolu su mu nee nekk c'est parce que dafa am ay spécialistes paramédicaux yoo xam ni ñoom àttan nañ loolu mën nañ ko ca matee nañ ko li nga xam ni nag moo ñu xaw a jaaxal tuuti mooy dafa aujourd'hui dañoo toll foo xam ni ñun suñ ministère bi dafa ñu bëgg jaaxal ndax lu mel noonu président teg ci tànkam mu nekk réussite boo xam ne tey ñu ngi def jalis fu ñu ngi def opération n'importe où grâce ndax corps boobu moo tax tey spécialiste paramédico yooyu nga xëy benn jour nga décourager leen complètement nga xëy benn jour nga mel ni bokkuñu ñoom ci système de santé bi nga xëy benn jour ñu lay woo di la mébét di la wax seeni problème faale woo leen ci problème bi sa très simple ki nga xam ni dafa dañoo jàng ba am benn niveau liggéey ba am benn technicité ñu dem ba yóbbuwaat leen xarañaat leen ba ñu spécialisé wu ñëw di matal seen liggéey nga toog a toog benn bis ni leen yéen ñi ngeen doon jàngal sax ñi ngeen doon assister sax ñi nga xam ne yéen leen formé sax léegi ñoom lañ leen jiital ñoo leen jiitu waaw ñooñu ci boppam lañ gën a faale ñoom lañ gën a fonk loolu du sax ñun lay metti mais système bi ci boppam lay bi ci système bi président moomu ko ministre moomu ko ñun moomuñ ko population bi moo ko moom ñun ñëpp dañ cee am rôle ci ki nga xaman yaakaar naa ni jusqu'à la preuve du contraire le président de la république xamul ce ki sa passe au niveau du ministère de la santé waaw mënuñu comprendre que vraiment yow nga jël sa politique bi li gën a réussir sa politique muy doter les populations des moyens spécialistes yi nga xam ni dafa jafe nga fexe ba loolu du dox dans les secteurs les plus éloignés nga xëy benn jour sa ministre jël ñu teg leen fële at a ngi topp ñu ngi ko topp di ko woo pour waxtaan ak moom bañ commencé campagne bi jege si. mu ne nañ ko may ba campagne bi yàlla def ñoom ñu gagné yàlla def moom ñu mainteniraat ko ministère bi ñu envoyé ko trois lettres pour rencontrer ko faale wuñu mais cela veut que donc ñun du ñun la manqué respect c' est le système qu'il va en train de détruire parce que aujourd'hui boo demee fi nga xam ne fa la ñu doon former paramédicaux yi di fa former infirmiers yi sage-femme yi techniciens supérieurs yi mais tey dara amu fa dara amatu fa. dara amatu fa la nga xam ni moom lañ fa waroon di def di ko fa def léegi ñi nga xam ne nii ñoo yore sax yenn structures yi ñoom ñoo dem di ubbi ci université yi yeneen branche di ko def privé cela la dire que dans peu de temps donc système bi ci completement mooy nit ñi lu loo defati da nga koy fay parce que privé su formé nit mu génn nekk habitude privée mais su boobaa kooku ci boppam day liggéeyal boppam ci lu mu liggéey dañ koy fay parce que ba muy jàng dafa fay te loolu état ci boppam moo ko jëloon en charge ci ENDSS di forme ñëpp di former infirmier yi former sage-femme yi former technicien supérieur yi former former odontostomatologue ñëpp mu former leen bu toogee tey ba mënatu la former parce que tout simplement sur le plan administration dara leeratu ci dara. parce que STEM LMD bi ñu koy demandé dañuy dañuy def ENDS institut c'est pour mu mën a continuer jusqu'au niveau di doctorat mais qu'est-ce qui est en train de bloquer ce processus ñu koy bloquer ban intérêt lañ ci am les gens ont-ils peur d'avoir beaucoup de docteurs en en paramédicaux mbala lan parce que en réalité ça tout l'air de de de de bloquer le STEM aujourd'hui à l'ENDS c'est du n'importe quoi amul benn promotion boo xam ne nii mën nga continuer def li ngay def boo xasee ba influence d'état lan ngay def léegi nag ñu ñuy sonal ci réseaux sociaux yi naan ubbi nañ ko université Saint-Louis ubbi nañ fële master bi ubbi nañ fële dal donc encore une fois nous interpellons le ministre de la santé nañu woo ñu toog waxtaan nañu woo mu jëf yi leer ci boppam ndax ñun li ñuy réclamer du ñu ci dellu kinaaw léegi nag atum lëmm munoo topp ci kilifa di ko wax pour ñu waxtaan nanguwul ñu jël l'opinion en témoin le 31 jan jan le 31 décembre bi dinañ def grève quatre heures comme ni ñu ko waxee léegi nañ respecter urgence parce que ñun ay spécialiste lañ ci am na loo xam ne duñ ko sàggane waaw urgence bu mënta nekk dinañ ko def urgence bu mën a nekk nag dina nekk bu mënee dem feneen mu dem mais vingt quatre heure de grève dinañ ko respecter le 31 décembre te loolu nag début la rek suñu wooyee ñu wax ñu trouver solution alhamdulilah bu ñu woowul it je pense que dinañ dajawaat évaluer ak suñu mampadoor yi ñu àndal wax nañ leen ko léegi ñu ngi ànd ak sat santé 3S sat santé SDT 3S ñu ngi ànd ak SAS ñu ngi ànd ak également aussi CNTS voilà quatre syndicats de la santé plus le SATSUS nous ñu nous ci cinq syndicats sur les onze donc je pense que c'est un cadre unitaire boo xam ni quand même très représentatif boo xam ni war nañ leen mën a déglu ndax il sont des acteurs dans le système et ils assument pleinement leur rôle tout ce qu'on demande c'est ñu toog wax suñu soxla ñu déglu ñu ñu wax li mën a nekk c'est au niveau national